intrant amul Covid baa ngi fi def ravage ba léegi liggéey la xal yi bëgg mënuñu am liggéey kon buñ toogee ba Sénégal tey fi mu toll ak coono bii nit ñi nekkee xiif bi fi nekk ceeb yokk dënnu yokk suukar yokk lépp yokk démocratie bi ñu nësaxal ko nga dem di jënd avion juróom benn fukki milliards wax dëgg yàlla ci moment yi bi ñuy wax ci euh, jamono ji wala di. non non loolu moom jaaxaluñ ñun parce que gannaaw mënta fexe ba dekku découper nit ñi parce que gannaaw mënta découper nit ñi découpage boobu mu def du ko jëriñ dara. ndaxte quartier bu ca nekk ña fa nekkoon contre ko ñoo fa nekk commune bu nu fa nekk nekkoon ña fa nekkoon contre ko ñoo fa nekk kon dul découpage boobu mooy tax mu gañe ko mu nekkoon Jokal Gajaga jiite eh, kuréel gi ëmb opposition bi foofu ca diwaanu Kaolack